fi njëkkal te leen njëkkal 7e édition bu ñuy def conférence bi ñi koy def ñan lañu jamiya jekkoo jamiya jekkoo mooy lan ñi ñi julli ci jàkkay jekkoo dëkk jekkoo di fi wasifa suba ak ngoon di def khadratu juma ak leneen yeneen ñu ne dal dañu bëgg dundal jakk ji kon nañu fexé ba créer ben euh jamia di am ay activités ci biir activité yooyu def nañu weer wu jot ñu jóge fii dem membre bu nekk ñu dëkk Wakaam ñu dëkk Sikaab ñu dëkk Bargny fu nekk lañ fay dem di di def tour daayira loolu dog mooy Jamhiyya Jekko Jamhiyya Jekko mooy def 17e édition conférence am tey parce que li tax mooy def précision boobu dafa am ñu xaw a jaxase foog ne euh, euh, li ñu doon def barke démb Euh, pose première pierre bi ñun la déedéet dafa am commission boo xam ne mooy gérer jàkk ji moo doon def loolu bu précision yu passé ma ñëw ci wax li tax amit ñu def ko fii ci rue tey jii lañ koy soog a def fii ñu ko daan def ci rue 29 te buntu jàkk ja waaye jàkk ja dafa daan dañ ko daaneel di ko liggéey foofa xaw a xat ñu ñëw fii ñaaru ñaari leer leer laa bëggoon joxe beneen bi xanaa di ci teg rek ay ay ngërëm wax dëgg yàlla bi ñu commencé lii ba léegi bu ñu nee dañuy yóbbu lettre ci kenn la ñuy jëkkee alaaji du duggee Amin sàmb mu jox ñu xaalis bu conférence bi jotee mu ñëw toog fii doomam moo toog nii sol lu mbaxane bu bëla mi bu ñuy woy Seydina Mohamed ba yaramam tàng mu jóg day baatare mom fofu rek lay baataree bu ñu wax sayyidina mohammed gor gogu kon 17 16 euh, éditions yi ñu def fi mo fi daan jëkk joxe mo fi daan tok commencement ba fin tey yalla def na jitu na mu ñoo ñu ne nak dañ koy defal ben hommage malheureusement dafa am décalement ci euh, ak contact yi ba ñu jël information yépp waaye doomam ñëw na ak chef de famille ba mooy Abdou Aziz Diagne mii di sama frère moom mooy seen moom waaw moom mooy seen kilifa ca kër ga kon ñu ngi ñaan sàkku ñaan bu euh, Pape Matar jotee kàddu gi mu defal ko ñaan Alaaji Duggee Ami Sam te jàn ñaan nañ sax tey ci suba def nañ fi kaamil ñaanal ñu jiitu ñëpp def nañu wasifa waaw Alaaji Duggee Ami Sam def kaamil def wasifa yëpp pour ñaan la woon tey jii dañuy àggali rek incha allah kon boobu jotee rek nga jox ci ah di gërëm nag population Jekko Kep kuy yewwoo Jekko ñu ngi lay gërëm gis nañ seen taxaway ci mbir mi di ci boole te ci teg suñu maire parce que buñ ñu population maire maire population moo ko tax a jóg kon suñu maire Bamba Fall ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal parce que teg jàpp na loxo ci mbis bi di ci teg. Euh, suñu xarit suñu suñu suñu doom suñu rak Cheikh Tidiane Ba mom tamit masul masul nee chaque fois bu ñuy organiser dina ci duggal loxoom dina ci joxe dara kon ñu ngi koy gërëm mom tamit di ci boole xaritu Abdou Aziz Diagne yi mën ma tudd ñëpp wante wagan Diouf la ci seppi rek ak euh, euh, Abdou Gor Diouf mu yobale ñu ci des ñu ngi leen di gërëm ñoom tamit euh, mag lañu ci ci penc mi mag lañu ci ñun waaye bu lii xewee ñoo fi jiit tey quatre heures fi leen fekk kooku nañu gërëm leen yàlla fay leen guddal seen fan bu loolu passé euh, ñu teg ci suñu ministre Seydou Seydou Guèye moom tamit ci kilifa yi ngànk gox bi la bokk ñu ngi koy gërëm teewu fi waaye ñu ngi koy gërëm parce que suñu jàkk ji biñ koy lig euh, bëgg a liggéey indi na fi architecte du palais mu xool ko pour ñu évaluer ko pour ñu président mu ci dugal loxoom kon kooku war nañ ko gërëm euh, di ci teg suñu frère Cheikh Tidiane sek Cheikh Tidiane sek ñi ëpp li ñu joxe ci jàkk ji ci la bokk jëmye bii conférence bu mu des bu mu ñu mas a def dugal na ci loxoom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dolli ko sutura dolli ko jàmm mu musal ko ci cat ak làmmiñ ah, am na suñu benn mbokku taalibe bu ñuy wax suusu yuusu Sissoko mi ngi fi woon léegi dafa tàggoo ne mu ngi dem ah yàlla dogal na nekku fi waaye ñu ngi koy gërëm yuusu Sissoko Aj Mansour Mbaye ñu continuer suñu nuyoo

suñu benn mag bu fi nekk boobu xam ne sañu ma ko bañ a tudd muy alaaji tafsir ibnu Diop xam naa ne bu amee ñu koy mag ci jotaay bi xëy na Mansour Mbaye lay doon waaye daal suñu mag la mu ngi nii toog moom tamit bés lu ñu mas a xew dañuy dem këram ba mu mën mënee day ñëw ba yàlla def na at yi passé yar ma dafa sutante woon mais ren daf ñëw daf ma woo ne su ma mënee su ma tanee dinaa ñëw yàlla dogal na ñëw na tey yàlla na nga gën a wér yaa ngi bi jaay si te guddal sa fan waaw xanaa di ci teg rek Abdoul Aziz Mbaye suñu suñu Abdoul Aziz Mbaye suñu suñu xarit suñu wéttal lu ñu xewle daanaka bu ñuy jàpp bés sax moom ñu jox bés Abdoul Aziz ak groupe ñu ngi leen di remercier di ñaan yàlla yàlla yokk seen xam-xam yokk seen lépp daal ba macha allah fu ngeen dem rek yàgg bëggal nit ñi yal na ko yàlla def alors xaadim allahumma salli ala di gërëm imam mi jël kàddu léegi di ko ñaan yàlla fanu gudd ak wér yàlla sàmm ko ak ñi mu bokkal mbir mi yépp di nuyu sëñ Pape kebe mi nga xam ni ku ko gis sa xel dem ci mawala sëñ Abdoulaye Malick Dabakh ci fegg gu mu feggoon ak moom di nuyu sama kilifa duma ci sori dama ko jox kàddu ndax nit sama jaay nee na bu waxee bu ma waxee moom wax na nee na penc mi kat dafa rëy seen Assane Ndoye moo daan jiite jumaay cëriñ am yu bari yu xew yoo xam ni nag neexut a wax te kenn waru koo wax sëñ Babacar si radiallahu taala anhu sëñ Assane Ndoye dootuma nekk ci kanam di jiite sëñ Babacar nekk sama ginnaaw déedéet woo Mboor woo Ibrahima Diop ak kilifa yépp ni leen sëñ Babacar si ëllëg day julli si man ca gannaaw lay ne ndax nangul ngeen ma ñëpp lebu yëpp nangu nooloo tax sëñ Babacar kori daw ko fi fek waye bu ne ëllëg la kori 29 wala 30 ci lay rentré Tivaouane waye koor gi yëpp fu muy julé ci gannaaw sëñ Assane Ndoye mini won man duma jité Babacar si Mamadou Dia këram a ngi nii nasri laax bi laax moom la daan werd fii la daan jullee ki xam ni suñu ko tuddee suñu xel yépp ni d'accord nanu di alaaji abdou aziz nasri bi laax fii la ko daan defe li ci des jërëjëf yi mag a ngi noonu mat naa bàyyi ci réew boo dee boroom xel mu rafet ni moom ñu koy ñaanal yalla wëral côté sam ko man nak dama ñëw wuy si wa jekko ndax dama fi am ay soppe ak sa ak xarit te mom mi la dégg sax mu def publicité ndax luma dégg mu wax ko ma dem kon ñu koy ñaanal yàlla fanu gudd ak wër di wax nit du du faté ndonom parce que ndono dafa fort te bay lak juma bërb bo xamni wala jak bërb bo xamni fa la ñëpp di joxé waxtu juroom jarna fonk kon ñu nu wax nii ñëpp dugal nañ seen wërsëg danoo delloo yàlla njukkal ndax ba leen di yàlla defal wërsëg tàgguwu leen kon bu leen defalee wërsëg ñu delloo ko ci yàlla wàcc nañu gërëm ñëpp rek ñu fi dugal seen loxo di ñaan ñu gën cee dugal seen loxo di ko jaare ci ku baax kii toog muy sax Ahmed Tidiane Seck bi nga xam ni wax nga ko léegi lépp lu muy def da ciy dugal loxoom kon jàkka bu demee ba buñ koy wax xalaat ko moom dañ koy ñaan yàlla fanu gudd ak yàlla dëgëral Chérif maa ngi lay maa ngi lay nuyu bu baax bokk yi daal mënumaa sori ndax histoire bi sama jaay wax na ko ne lu mel nii mu koy doxal ne dafa am lu xew ne mënu ci bañ a sànni kàddu nee na moom Baye maxtaar dina ko ko may ndax way juram moo bind ijaasam sëriñ Abdou moo ko may tariqa bi jàpp na ci seede nee na Baye Mansour mii ak xalifa Mbaye ak Mbaye Diop Fari Mbaye ak Aline Badara Paye ca mag ñu jëkk ña ne loolu yàgg na ne may ko ñetti minute ñu julli ne dafa am lu nu wax jëme ko ci Baye Mansour mii ne Mansour dina gudd fan Baye Mansour nee na bu soobee sunu borom nee ndax way juram ko ñaan moom la ko sëriñ Babacar ñaanaloon moom la ko sëriñ Babacar si ñaanaloon hani an li dabbaaxi zunu xuluubi li rabbihi qad absarahu mawlaahu qurrata aynihi ayaa mubligan minhu risalata faslama jazaakal ani min xayrihi summa amihi nee na foofii la rafete njort nag nee na ñaan gi dana leen topp nee na seexal xalifa ñaanal loolu ñaanal ko nag te baax ca ba mu taawloo kan Maodo si nee na mii ci sëñ Maxtaar mi ñu webar Baay Maxtaar mi di benn ak moom nee kooku jàll na nee bi ci des occasion la mu wax ko bokkul lu muy falaate nit nee nag sunu borom yàlla wàccoo na ak ñun ne xam na li muy wax at na nee na fekk sëñ Abdou Ibou Sakho mag ñëpp ñu may fa soxna mag yi Baye Mansour mi nee am na loo xam ni bu doyul asgor dara dootu ko doy nee dañuy wax ni ci teraanga waxu ko pour bëgg lu ko neex nee ñaam alal di ko def feneen bari nañu waaye Cheikh nee na yow fi nga foo ko jëme ci yiwu yàlla yàlla bu la ca topp amin loo ragal yàlla bu mu la jege nee na loo yóotu yàlla na ko jot amin nee na lu war a agsi yow yàlla ko yàlla fank nee na nga bokk kook ñu fi toog ñépp ak mboole mu julit nee na mu ngi gis ni nee na wutewu ko daraja wutewu ko dërëm dafa am lu ñu sës ci moom sës ci moom di taalibeem mu di leen jàngal ku dégg bëccëg ca la muy def ci ñoom moom xam na ko yàlla na nga ko yàgg def amin nee na jàkka ji ñu sumb nee liñ ci wax yal na ci yàlla def tawfiix nee na am na loo xam ni nee dina woo président mu ñëw kër ga ñëw nañ fa bu yàggul am na lu mu def am ku jóge ba tugal am lu mu wax ak ku jóge ba Ziguinchor moo tax mu jël kàddu xam na li ma wax xam na li muy wax dinañ ñëw ma àggale ak ñooñu nee na Samba a jërëjëf. أعيننا ونور أبصارنا وبصائرنا صاحب المقام المحمود الذي أرسله الله رحمة وهداية للعالمين وآل بيته وأصحابه وخلفائه وأنصاره الذين جاهدوا في الله حق جهاده إلى أن أتاهم اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen baalu xaq yéen ñépp di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal بوك نتي لي تاردل نيت ëlëk يوم القيامه مودي حق ييغا خامني مو دوخ سونو ديغنتي تا باي وول كو خيل صلى الله عليه وسلم نانا صلى الله عليه وسلم نانا خر ميغا خامني صاح دا فا ام بيجين رومبو خر مو امول بيجين مو مبككو بو يوم القيامه xar mi amul woon béjjén yàlla dana ko saxal ay béjjén mu fayyu ba noppi ñu door leen a soppi poussière jëri leen ñu dem waxantuma la ak diggante nit ak nit te ñun duñ ci bàyyi xel dañuy dem rekk dal xel tooñ xas nit dëkkal nit fu mu dëkkul yàq deru nit tuumal nit ah te li ngay wax amuloo ci benn preuve muy xaq boo xam ne diis na lool ëllëg nga war koo régler sa digganteeg sa borom te doo xam noo koy régler kon mbokk yi maa ngi leen di baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñun ñëpp suñu góor gu tedd ga te tey la gën a tedd ndax yàlla du maye mukk du di nangu te dee du dindi mayu yàlla wa ma kaana ataau rabbika mahduura muy mawlaana cheikh alxaaji abdul aziz radiallahu taala anhu nga xam ne yàlla daf ko may mu jekku paddu ñaan fa muy jaar yàlla ci ñaan néew na ko ko fay jaar ndax xam yàlla gaa toll noonu cofeelam ci sallallahu alayhi wa sallam moo toll noonu daana wax ne yow yàlla yàlla na ñu jéggal xaq yiñ ñu la abel xaq yi dox suñuy diggante ñun dafay war ci te mënuñu koo fay yow yàlla yàlla na nga tibb ci sa magasin wu ngëneel yi fayal ñu ko te bañ koo jële ci suñuy tiyaam daana bu daan julli ci sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci seer yi mu daan jëfandikoo buy tëj salaatan tajcaluha lana hadiyatan li kulli man lahu xaqun alayna yàlla ñu ko defal kado ci képp koo xam ne am na xaq buñ ko ameel moo xam nit la moo xam bàyyi ma la kon mbokk yi yàlla nañ yàlla boole jéggal yàlla buñ yàlla topp dara bis bu ñuy dajeeg suñu borom mbokk yi ñi ngi ñaan suñu borom ci mbaaxam ak tedd ngaam ak ngëneelam baat bi mujj ci suñu làmmiñ yàlla na baatu laa ilaha illa allah allahumma jacal aaxira kalaamina kalimata laa ilaha illa allah xiina nalqaak bis buñ demee ba mu wóor nañu ne nan li ci kër gi dootuñu ci mos yére yi ci armoire yi dootuñu ko sol lal bi danañ ñu ko wàcce kont ya dootuñu ko laal oto yi dootuñu ko dawal mu wóor nañu ne ñi ngi génn àdduna di dëgmal aaxira alaaxira ñi ngi ñaan su boobaa baat bi mujj ci suñu gémmiñ yàlla na nekk baatu laa ilaha illa allah sallallahu alayhi nee na képp ku ko yàlla defal da nga dugg àjjana yàlla ñu ko yàlla boole defal mbokk yi yal yàlla def àjjana muy suñu cër ak ñi ñu bàyyi ci ñoom ak ñi nar a bàyyi ci ñun ba àddunay tukki mbokk yi yal yàlla musal ci safara ak lépp lu cay dugal nit moo xam kàddu la wala muy jëf ñi ñu bàyyikoo ci ñoom ñépp yal na ñu mucc ci safara ñi nar bàyyikoo ci ñun ay doom ak ay sët ba keroog àddunay tukki ñun ñépp yal nañu mucc ci safara di yëkkati kàddu yu nuyoo ak ziyaara mu jaar ci suñu làmmiñ waaye bàyyi ko ci suñu kilifa suñu sëriñ di suñu doomu sëriñ di cheikh alxaaji malik abdul aziz yàlla yàlla sàmm ko may ko mu mottali ay yéeneem seq ko magam ju tedd ji di xalifa bi di sëriñ babacar mouhamadul mansour ak seen rak sëriñ Babacar Abdoul Aziz seeni rakk seeni doom seeni jarbaat ak lépp loo xam ne suñu maam Cheikh Al Hadj Malick jaboote na ko ci góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñépp ñu di suñuy sëriñ maa ngi fàttaliku année bi nga xam ne ci la sama way jur génn àdduna dañu nekk jeg saw ak góor gi jékki-jékki rek Cheikh Diop bokkoon na ci ñi daan dawalal góor gi dem jëli añ Tiwaawan bi mu ñëwee indaaleel ma benn lettre ne sa papa la ko jox ma ubbi lettre ba fekk muy xasida di testament boo xam ne mat na fanweeri bayt ak nangam mu mel ni sama baay daf ma doon tàggu waaye bokk na ci lam ma dénk mu ne ma bu na yow sama ndoom bokk na ci li ma lay dénk ahibat dahra sa giiru dund giiru jamono nanga nga sopp usrata malikin njabootu Cheikh Al Hadj Malick ñoom ñépp nag laa wax bul ci am xejj ak seen wa adibuhum janaban wala yina na nga leen màggal nanga leen jox seen cër te nga nooy népp ci seen wet maa ngi lay dénk nag walazim abakar barra na nga taqoog sa baay bu baax bii di dabbaaxa malikin di cheikh alxaaji abdul aziz waaye nag wala taasihi amran te bul mooy ndigalam wa janib te xawu na te nga mooy tondi ko ànd ak moom ci kaw ba noppi di ko war ci suuf xiyaanatu ahlillaahi charru xiyaanatin war yépp trahison yépp bi ci gën a bon mooy war nitu yàlla man ictaadaha yuxramunahu wa yulaana ku ko def muy sa habitude di sa aada danañ la xañ sa bëgg-bëgg te danañ la soril njëggalu yàlla ak yërmandeem maa ngi lay dénk yow sama ndoom wa daawim salaatan kulla yawmin wa laylatin ala man sara laylan wa mawlaahu qaddana maa ngi lay dénk na nga miinal sa làmmiñ julli ci sallallahu alayhi wa sallam moo xam guddi la moo xam bëccëg la sang bu tedd boobu nga xam ne yàlla moo ko rañaanal mu bàyyi ko fii ci suuf dema dem ba ca kaw ànd ak Seydina Jibril mu di ko wettili dema dema dem ba mënatul a dem mu bàyyi ko mu dema dema dem ba fakka fakkaana qaaba qawsayni aw adna fa awxaa ila abdihi ma awxa ma kadaba alfuaadu ma raa Cheikh Alxaaji Malik moo ñu fi yebal ndax ku ci nekk xam na ne at nekk moo daan ñëwal àndal di Cheikh Al Hadj Mansour Mbaye Cheikh Al Hadj Mansour Mbaye mii yàlla daf ma ñu mas a boole ci gént may dox ci benn boulevard bu mag boulevard bi benn buntu kër tijjeekuwul buntu yépp dafa tëj man kott may kondam kondam di dox di dox ba yem ci benn buntu kër fekk fa sëriñ Mouhamadul Moustapha Touré. ñoo bokkoon daara doon jàng ñoo tarendoo alquran ci loxo sëriñ Mouhamadul Hadi Touré radiallahu anhu ak sëriñ Habib si sëriñ Alioune Kandji si bari woon nañu macha allah ma fekk sëriñ Moustapha mu taxaw galenu bunt bi ma ne ko sëriñ Moustapha looy def fii mu ne ma sam papa moo nekk ci biir nee naa ko gardeel bunt bi mais yow danaa la bàyyi nga dugg bi ma ñëwee maa ngi fekk sëriñ Hadi mi ngi toog ci pliant bu mag sol boobu mu mu mu mu chocolat mi ngi am jëmm xar kanam baa ngi rafet weex tal bëñ yaa ngi leer ba mel ne wurs macha allah ma dikk nuyu ko fóon loxo yi ziyaara ko ba àggal mu jékki-jékki ne nañ ma wol man suur mbay te bi mu koy nuyu mag moom rekk a nekk ci néeg bi mais bi muy wax loolu fekk na nit ñaa ngi ñëw di ko ziyaara mu mel ne nit ñi dañ doon fénatal bañ xaaji Mansour mbay ñëw mu insiste ne nañ ma wool xaaji Mansour mbay ñu dem wooye xaaji Mansour mu ñëw mu téye loxoom di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal ba lu soob yàlla mbokk yi loolu cër la xaaji Mansour yal na la yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi li la jaami yàlla yéene nga yéene ko sa bopp sa njaboot yéene la ko lépp yàlla ko yàlla mottali ci sa barke turandoo Cheikh xaju malik mooy daan ñëwal boppam waaye ku ci nekk xam na ne ngant moo tax ñëwul ndax jekko dafa rëy ci moom yaakaar naa ne délégation bi fa demoon bu yàggul seeti ko ci njiital président ak imam ak mbokk yi ñu àndaloon yépp Hadj Malick wan na leen ne leen jekko jekkoom la ndax jekko ay woy juróom la ni ko alxaaji Mansour mbay waxee léegi ci historique gu ko ak jumaa jeeg jàkk yi commencé ci sëñ Babacar Cheikh alxaaji Mansour ak mag ñu baax ñépp seqoon kook ñoom tabarakallahu ndono loolu nag du fi jóg yàlla du maye ba noppi di di di nangu yàlla fu mu xas ba des barke rus na yaras na mos di ko dindi barke boobu moo fi nekk ba àddunay tukki ña koy téye nag di ko sauvegarder yàlla nañ ci yàlla boole loolu rek mooy li am solo tabaarakallah nuyu kilifa yi fi nekk yëpp ziyaar yi ñëpp jox leen seen wàccuwaay ndax doomu aadama cër bi ko yàlla jox mënoo ko ko xañ te képp ko xas ba wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nangul suñu borom rek kilifa nga ci lislaam الله ولي الذين آمنوا يالا نينا من ماي كولابوراتور نيغا خامني گم نانيو يالا تا ني ني في توك مبوكي ا من دي گم نا نه كو تي خار خولم دا تي فك ليرو لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تا لولو بو خاسه با ام مبوكو امنا خريطو امنا سوبانتي امنا كولري امنا buumi maanaa yooyu nga xam ne moo ñu takke mbokk yi mënuñu ko séddoo waxoon naa ko bu yàggul ma ne leen lislaam dafa neex dafay takke ay nit sayiduna bilal ma nga bàyyi ko ca xabasha sayiduna salman al farisi ma nga bàyyi ko ca faris sayiduna suhayb ma nga bàyyi ko ca ruum waaye ñu ñëw bi sayiduna muhammad wootee ne yàlla ko yónni yàlla ne ko fasda بما تؤمر واعرض عن المشركين جتنا نيت اتانغي ني ياغي يعني لاقتو سي دار الارقم ابن ابي الارقم دي نوب دعوه بي نيت ات سانغ باغي ووتي دي نوب ووتي بي ناخ كاتيورو وا قريش عينات اك سن فترلو سن بان واي نك بسسنك ديمي بسس نك يالا نكو بيس biralal daawa bi fasda bi ma tu'maru wa a'rid anil mushrikin inna kafaynaaka al mustaziin yëjjikat yi ñi lay sabote di la yàqal ñoom ñépp danaa dox sa digganteeg ñoom ak lu ñu am am doole bu dee ci wàllu alal bu dee ci wàllu nguur bu dee ci wàllu juddu ak lu mën a doon danaa dox sa digganteeg ñoom kenn mënul fexe ba baatu laa ilaha illallah du jib du jolli dama dem ba matale afaqat dunia goxi aduna yépp boo demee ca Chine ashhadu an laa ilaha illallah ma ngay jib boo demee ci Amérique ma ngay jib boo demee Europe ma ngay jib amul benn continent booy dem ci xaraat yi am wala muxitaat yi wala géej yi fooy àgg te doo fa fekk jullit buy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah moo tax waykat ba wax ne ida shtaka muslimun fi lhindi arraqani wa in baka muslimun fi siini ab nee na baatu laa ilaha illallah boobu nekk ci sama xol nekk ci xolu alxaaji Mansour Mbay nekk ci xolu alxaaji Babacar Diagne nekk ci xolu Cherif Mamoun Cherif Mamin Haydara nekk ci xolu keneen ak keneen nee na baatu laa ilaha illallah boobu yàlla tasaare ko ci sunu xol yi ñun ñépp dem naa dem ba indi ak mbokk ci suñu diggante dem naa dem ba nga xam ne sama mbokk ma nekk ca Chine bu demee ba am problème am lu ko metti mu jambat ba tax ta nelaw su ma tëddee fii ci jakku man tam dana veille dana fokk duma mën nelaw ndax solidariser ak moom wa in baka muslimun fi siini abkani sama mbokk ma nekk ca China ak Chine ak fii ni mu soree mu xonq curru ma ñul kukk waaw bët ya tuuti samay bët bokkuñu karaw bokkuñu bind te ki ñu bind kenn la te mooy yàlla waaye baatu laa ilaha illallah boole nañu ba bu demee ba dégg jam ko mu ne u wala mu jooy man danaa jooy pour solidariser ak moom mbokk loolu lislaam rekk a ko man lislaam boobu nag mbokk yi yàllaa ngi ñu ci ñu wax ak ñun wax bu daw yaram aaya boobu bëgg na ñun ñëpp ñu koy nafa ci suuratu ali imran yàlla mi ngi wax naan bismillahi arrahmani irrahim yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha xaqa tuqaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne baaxe naa leen ba seen xol nangoo kapte leeru laa ilaha illa allah seen làmmiñ nangu koo seeni cër itam nangu koo dund yàlla mooy wax de nee maa ngi leen di dénk te li ma leen di dénk mooy yéen ñépp na ànd bàyyi ma xel ragal ma yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaati na ngeen ànd yéen ñépp ragal yàlla dëggi dëggi ragal yàlla ragal yàlla moo di li la yàlla sant nga def ko li la yàlla tere nga bàyyi ko yàlla nee na nanga ma gëm nanga ma wéetal bul ma wutal bokkaale bul ma wutal ndend man bokkuma kenn imaam bi muy julli moom la jàng qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla amul doom yàlla amul soxna amul jarbaat amul sët yàlla yàlla la bàyyikoowul ci kenn kenn bàyyikoowul ci moom lam yëlit walam yuulat amul kenn ku mel ni moom amul kenn kuñ koy tëkkaleel amul kenn ku kuñ koy dendaleel seyduna muhammad li muy baax baax li cëram di kawe kawe ci yàlla jàngale bu muy jàngale ci moom la ko jaarale ne bismillahi rahmaani rahim ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بقي يالا لم gëna bañ bàkkaar yi alkabair péché yu mag yi bari na boo demee ci téere bu ñuy tudde alkabair al imaamu dahabi moo ko taalif alayhi salaatu wasalaam bi muy lim bàkkaar yu mag yi dinaan ijtanibu bu saba al-mubiqaat juróom-ñaar la ci tudd waaye al imaamu dahabi dem na ko di ko lim di ko lim ba bàkkaar yi sax mat na ñetti téeméer ak nangam lépp bokk ci bàkkaar yu mag yi bàkkaar yooyu yépp yàlla nee na mën naa koo jéggale ba mu des ku ma bokkaale ba mu des ku ma bokkaale soo ko defee te tuub yàlla mën na laa jéggal yàlla li muy bañ li ñu yàlla di bañal mooy ñu deewaale bokkaale ak yàlla te bokkaale ak yàlla sew lool taxoog ñun duñ ci bàyyi xel ci sunuy wax sunuy jëf surtout senegal nga xam ne nit ñi dañu sañ wax Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu daana wax ne bokk na ci nattu sénégalais mooy séddale cër yoo xam ne nekkul ci seen loxo séddale cër yoo xam ne nekkul ci seen loxo da nga gis koo xam ne dana sopp sëriñam dana ko bëgg-bëgg koo xam ne dana ko jox cër boo xam ne wóor na ko ne sëriñ bi moomu ko yàlla ko moom foofu nag fi la danger bi nekk cër boo xam ne yow mi koy joxe wóor na la ne ki nga koy jox moomu ko ki nga koy jox wóor na ko ne moomu ko kenn kott moo ko jagoo moo ko moom muy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla waxanteeg alayhi salaatu wasalaam ne ko wala qad uxiya ilayk li ma la inspiré inspiré ko sa mbokki prophète yi la fi jiitu woon moo di la in ashrakta maa ngi giñ ne bis boo ma bokkaalee wutal ma ndend associé ma ak kenn la yaxbatan na amalukum loo mës a def ci lu baax dana mab dana yàqu te dana sippeeku wala takunanna min alxaasirina lam gi dafa dafa tabbi ci jawaabul xasam bi nuun gi nekk nuunu tawkiit bu ñu dëgëral waaw wala takunanna min alxaasirin da nga bokk ci ñiy perte ëllëg alayhi salaatu wasalaam la yàlla wax lii de te ku ci nekk xam na ne sallallahu alayhi wa sallam mënta bokkale ak yàlla ndax yàlla waajal na ko lii tax nit di baax jub mën a jubóog boroomam yàlla daf ko waajal sallallahu alayhi wa sallam waaw koo xam ne dañ la opéré sa xol yebal sayduna jibril mu ñëw yore satala goo xam ne ci or lañ ko defaree def ci ndoxu zam-zam mu fekk la ngay tuut tànk di foo ak di ànd ak say moroom di fo du ma ko sax tudde fo ndax alayhi salaatu wasalaam mosul jaar ci fo waaye rek mi ngi ànd ay boromam di daw mu ñëw fëkk ko yóbbu tëral ko opéré ko génne xol bi raxase ko ndoxu zam-zam génne ci benn lumb bu ñuul ne ko lii mooy cëru seytaane bi nekkoon ci yow yàlla dindil na la ko lii tax nit di mer lii tax nit di soxar di liggéey moroomu nitam di tibb tànkam di dog ay xaatim pour yàq doomu aadama di jël turu nit hisab ko hisab turu ndayam bay ba guddi ñépp tëdd nga dugal ko ci benn musallas wala benn murabba wala benn muxammas toog di tudd pour yàq doomu aadama loolu xabdu seytaan cëru seytaane bi nekk ci yow moo tax nga koy def nit ñëw na la kii sama adversaire politique la dama bëgg nga yàq ko jox la fukki million nga def sa xalwat du ma ko sax tudde xalwa nga def lu la neex yàlla ci maandu teem seetaan nga jël kooku xisaab turam xisaab turu ndeyam seet lan mooy biddiwam nga dugal ko ci xaatim bind ne ko boo demee bàyyil ba ñépp tëdd ba suuf sedd nga dem ci armeel ya néew bañ fa mujj suul nga sulli ko jël téere bi def ko ci gémmiñ gi pour yàq doomu aadama loolu ki koy def dafa fekk ne cëru seytaane moo nekk ci moom moo tax sëñ Babacar si radiallahu anhu daana wax ne laa ilaha illa allah su tiimee laa ilaha illa allah ne ko deq rendi ëllëg ñu tase ci kanamu laa ilaha illa allah lan la ñuy lay laa ilaha illa allah te li ci penc mi yépp di xew ci ay musiba ak i balaa ak animosité waaw lépp waa laa ilaha illallah ñoo koy def tey la jàkka yi gën a bari tey la jumaa yi gën a bari tey la daa daaira yi gën a bari gàmm yi du jeex conférence yi du jeex màggal yi du jeex mais tey la xol yi gën a wanante ginnaaw tey la xol yi gën a wow tey la nit yi gën a bañante tey la doomu aadama gën a pare pour yàq moroomu nitam kon jàkka yi ak jumaa yi lan la ñuy jariñ wasifa yi xadra yi laa ilaha illallah ba sa yaram tàng ngeen bokk benn malaanu wasifa dama dem ba kenn nekkatu fi mu wóor leen ni yéen ñu koy tudd seen yaram a fi nekk mais seen lépp biir ma nga ca kaw te bu ngeen pare woon sa portable wattu ku doon wax laa ilaha illallah dana ko for dem jaayu ko kolobaan boo ko laajee doo ko gis lii liimaan bi dëgg woon ci ñun shérif Mamoun shérif Mami dara mën na génn këram ne damay seeti sama mbokk Cheikh Ahmed Tidiane waaye xam na ne moom gëm na laa ilaha illallah Cheikh Tidiane Seck mi muy seeti gëm na laa ilaha illallah ñi mu bàyyi ci koñ bi gëm nañu laa ilaha illallah ñi muy romb ci mbedd mi gëm nañu laa ilaha illallah shérif Mami mën naa bañ a tëj buntu këram. dem ba seeti sëriñ Cheikh Seck ba dellu siwaat daf koy wóor ne kenn du koy wax laa ilaha illallah du ko wutu ci këram du ko wutu ci njabootam mbokk yi ndax àgg nañ foofu waaw tëj armoire bi lépp sopp nañ ko de ah ah ku ko sopp texe de yaa xayu yaa man laa yamut <coughs> ah léegi xam naa mu ngi noonu dal mbokk yi jéem a jubóog suñu borom nañ jéem itte bi ñuy am pour dundal suñu yaram di ko def ci ñam dem sa Auchan wala nga dem Carrefour wala nga dem ci grande surface yi man faa def deux cent mille francs léegi ci benn pañe yóbbu sa kër pour dundal sa ruux yàlla bañu ko ndax lépp luy teraanga jullite ko moom waaye ni ngay itte woo sa yaram fexeel ba itte woo noonu sa ruux dund fexeel ba sa xol dund di yëg yàlla xol mooy nit ku la gën xol gën laa sell xol gën laa laab xol moo la gën a jege yàlla kon ñu ngi ñaan yàlla mbokk yi ah alhamdulilah yàlla nañ yàlla defaral suñuy xol sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ci xadis bu gudd nee na yaram woo gis aw suux a ngi ci su baaxee yaram béppay ay baax bu yàqoo léppay ay yàqu ñu ne ko mooy lan mu ne mooy xol sayyiduna luqman alxakim nga xam ne nit ku ñuul la woon nekk diggante Soudan ak Égypte fa la doon dund ci jamono yonent yàlla Daawud alayhi salaam Seydina Luqman yàlla daf ko bindoon bind bu yéeme bind boo xam ne ci ñun jekkul waaye ci yàlla jekk na karaw ga dafa baramu fagg lool dëgër ba kenn mënu ko peñe kanam ga itam yaatu lool tuñ ya xar loxo yi yaatu lool tànki yi suufu tànki yi dafa xar benn waaye di ko xool ba mu yàgg mu ne ko luqumaan yaa ñaaw luqumaan ne ko xasuloo ma ingénieur bi ma bind moom nga xasta mooy yàlla tu ma doon bind sama bopp damay rafet yàlla mayoon ko xikma wala qad aataynaa luqmaan al xikmata du woon yonent nag bi mu nekkee sangam bi nga xam ne moo ko yilifoon sang bi ne ko yaa luqumaanu dama bëgg nga dem ci gétt gi boo demee nga jël fa benn gàtt nga rey ko fees ko indil ma ñaari cër yi gën a baax ci gàtt bi luqumaan dem jël benn gàtt rey fees indi làmmiñ wi indi xol bi Seydina Luqman toogaat ab diir ne ba sangam toogaat ab diir wax sayidana luqmaana ne ko demal ci gétt gi nga jël benn gàtt nga rey ko fees ko indil ma ñaari cër yi gën a bon mu dem indi làmmiñ ak xol ñaari cër yi gën a baax làmmiñ xol ñaari cër yi gën a bon mu ne ko làmmiñ ak xol mu ne ko waa lii naka la mën a amee mu ne ko xol su baaxee làmmiñ yiw rek lay wax koo gis mu ñaw làmmiñ réew ñàkk kersa ñàkk teggin dang làmmiñ ku mu tontu nga jéggi sa reer billaahi alladi laa ilaha illa waatal na xol ba dox maa la ko wax koo gis mu boyal làmmiñam ci deru gor ñi di leen yàq diw nga ne espion diw nga ne góor jigéen la diw nga ne franc la diw nga ne sàcc la diw nga ne njaalookat la ku ñu tudd nga wax ci moom lu bon yow rek a baax ñi ci des ñëpp dañoo bon sa am na lu ci nekk bari na ku ñuy tuumaal te lañ koy tuumaal preuve amul te l'islam nanguwul lool yonent bi saa sam daan toog ba yàgg mu ne bu bu kenn ñëw di ma nettali ci sama saxaaba yi lu bon uridu an axruja ilayhim salima sadr dama bëgg su may génn di recevoir sama saxaaba yi ku ma ci xool muuñu waaye yàq seen der ba ku ma ci xool fii wax yu gi ñëwul du ma xam ndax liñ ma wax ci moom dëgg la wala du dëgg loolu laay bañ bàyyi leen ma rekk ku ma ci xool bëgg ku ma ci xool accolade la jox la ci li ci sama biir xol kon mbokk yi yal na yàlla fay la loolu yëpp ci daara ji la bokk ndax dañuy fàttalente rek man wóor na ma ne lii may wax nii ñu ma ko gën a mën rek nekk ci tànt bi wallahi alazim waaw góor gu baax gi fii ci gël tàppe ma sama wax mu ne muxtaar maa ngi leen di xamal ne mënu leen fee wax lu nit ñi waxlu woon lu ngeen muus muus lu seen xel xel ñëw ñëw mënu leen fee nettali loo xam ne bi nit ñi xamuñu ko wala jànguñu ko ci téere yi mu ne ma comme que lu fi waay di wax nag waxit la jarul jarul kaalawu jarul feem waaw jarul jarul wut ay feem waxal te yàlla tax ñi lay déglu déglu la te yàlla tax dañuy fàttalente rek nafar suñu diine fa dhakkir in nafaati dhikra wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin te ñun ñëpp ay jullit lañu dañu fee daje ngir nafar suñu diine bëgg bu ñu fi jógee ñun ñëpp rek ñu ñu defaruwaat man li may wax jàpp ma ne Xaji Mansour Mbaye laay waxal ma ne euh, alxaji Daw Góor Mbaye laay waxal ma ne alxaji Mbay Jaañ laay waxal man dama jàpp ne sa bopp laay waxal yàlla nañu yàlla defar ñun ñëpp su xol baaxee mbokk yi làmmiñ yu rek lay wax su xol yàqoo nag bon làmmiñ lu bon rek lay wax yàlla nañu دفر رسول الله خلنا نجيب ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ngi jotal nuyo yi nga xamne mom la ma serigne bi yónni won li ci des incha allahu danañ ko baye ak professeur al hadji sulayman Ba mu agale ko euh ma sha allah ndax rek alhamdullilah rabbil alamin yàlla nañu yàlla dolli sutura waaw yàlla nañu yàlla dolli sàmm yàlla nañu yàlla dolli aar mbokk yi alhamdulilah ñu sant yàlla ñun ñëpp rek sant yàlla wallahi nañu sant yàlla waaw xéewal yi ñu yàlla defal benn tuutiwu ci xéewalu wax wax wax wax rekk wax nit a nga koy xeeb mais ki ko yàlla xañ xam na li mu ñàkk lan la xéewalu dégg xéewalu gis xéewalu bëgg a jóg dox kenn téyewu la xéewalu tiim ñam mën a tibb mos li ngay mos mu jàll fi mu war a jàll rees li war a dem ci yaram bi dem ci li nga soxlawul génn te sa sutura du xaweeku nit a nga koy xeeb mais am na ñu ko yàlla xañ bi ñuy ñëw indaale wuñ fi dara bu ñuy dem duñ yóbbaale dara wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a yàlla ne na ma roof dégg roof gis dugal xol bu yëg laallakum tashkurun mais est-ce que ñi ngi sant ñi ngi sant est-ce que ñi ngi sant donc nañuy sant yàlla oxygène bi nekk ci jaww ji ñi ngi ci noyyi bis bu nekk te fayuñu yàlla dara te am na ñoo xam ne ña nga ca cardiologie tëdd masque yi ñu leen defal bu ñu koy dindi ñu wuy ji seen borom te lu bare bari lañ ciy fay te nag loo ñàkk-ñàkk daraja Chérif Mami mën naa nekk sa sallallahu alayhi wa sallam mën na ma gën a jege yàlla mën na ma gën a baax waaye nag fu mu nooyee ma nooyi de waaw Chérif may ma ma nooyi déedéet waaw mën na maa ëpp lépp nag waaye fu mu nooyee ma nooyi waaw kon xéewal googu ñu yàlla defal mbokk yi nañ ci sant yàlla waaw bari na koy jàmbat rek dafa professeur sëñ Abdou Ba bi nekk cardiologie nee na dafa am benn soxna bu ko sees ndeysaan ñëw toog rek di jàmbat di jàmbat di jàmbat professeur nee na ma toog di ko déglu ba mu pare ma ne ko yaay te nga sant yàlla gis nga fii ci biir am na fi ñoo xam ne ñi ngi tëdd ñi ngi leen defal ay masque bu ñu koy dindi ñuy génn àdduna te yow yaa ngi noyyi ki te kenn takku la dara mu noyyu wat ne ko doom jërëjëf door a dellusi si fàtte lam doon jàmbat yépp macha allah jàngale la alhamdulilah mbokk yi ñu ngi nuyu kilifa yi ñu fi fekk yëpp di ci jiital Cherif Mami Haydara Cherif ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay jox sa wàccuwaay la Cheikh El Hadj Abdoul Aziz waxoon ci yéen ne yaa saadati xubbukum fi lqalbi magruusu bi idni man huwa subuuxun wa qudduusu naaru lmahabati fi laxshaai muxriqatun ka annani fi jaxiimi shawqi maxbuusu loolu rek laay wax ci yow góor gi moo ko waxoon ci alu bayti rasul sallallahu alayhi wasallam neena sopp gi ma leen sopp man dabbaax malik yàlla moo ko jëmbat ci sama xol dafa ancré ci sama xol ba dootul dañ maa ngi ko def nag ci ndigalal ki nga xam ne moo ñu moo ñu ko sant waaw yàlla moo ñu sant ñu bëgg alu bayti rasul qul la asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l ay waay papa Abdou yow su ma la toppee day danaa danaa dana waaw papa Abdou yow su ma la toppee macha allah waaye nag yal na la yàlla fay yàgg mbokk yi nga ko seqal yépp yàlla na ngeen yàgg tàggal tantal sallallahu alayhi wa sallam mi ngeen di dugal ci xolu jaam ñi yàlla na leen ko yàlla defal mu nekk manaabiram mi nuur يالنا نك منابر من نور يوم لا ظل الا ظل الله سبحانه وتعالى سانغ بي كوكو كوكو بغ رك تخي مبوكي والله العظيم كو بغ يونتي بي تخيغا صلى الله عليه وسلم يالا كو بغ Hallelujah. yuusu nee na safaraw cofeel naarul mahabbati fi l axshaai muxriqatun lakk na sama xol ba lakk samay baljet sama yaram dara desatu ci ka an na ni mi ngi mel ne ki man Cheikh Abdoul Aziz maxbuusun dañu ma tëj fi jaxiimi shawqi ci safaraw cofeel loolu góor gi waxoon ci adu baytu rasuli sallallahu alayhi wa sallam Chérif ñu ngi koy wax ci yow ak képp koo bokkal Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam sëñ Pape Makhtar mi doon wax lu tax mu bàyyi ñu li ko yóbbu ci xaal bi mu nekk lan moo tax mu bàyyi ñu fi ñun Abdoul Aziz sëñ Pape Makhtar mi doon wax ci Seydina Muhammad ngeen di way Seydina Muhammad ba mu yéeg fi mu yéeg ci xaal fan lañu nekkoon ba mu bàyyi ñu fi yalla ñu yalla dafa defal tawfiq waaye laa garwa xam nga am na ko xam ni bu la xasse mosal mom mos nga ba faaw ko xam ni ci keppaaru goor gu tedd googu di maulana cheikh sidul xaj abdoulaye dabba cheibatul hamdi fa nga leppé doyna seuk muy akko way di way suñu borom yalla ñu yalla yéegal ci ñooñu sëñ Pape Makhtar ya Allah na ne suma ma ni suma ma ñëwee fii dinaa laal rajo bi du ñëw ndax waaj naa yeeb bi waajaat yeeb bi ba yàgg rek mom mujj ndax di ko déglu daf maa gën a jëkk ci di wax ci ko Paris ko tarbiya ci kër Seydul Malik bu jakka jàkka doy nga fa sëkk ilimaan ndax ñi jëm sax mënatu ñoo dox ci suuf ko ci gis ma ngay naaw ñi jëm ñi li fëntu dala bu ñu baax ci gis ma ngay fëgg boppam di ni moma waye mom foko gisé rek bu ci jumla dama koy xol ci jumla ci lugal arabiya wala ci grammaire u arab dama naan ismun laa yansarif la mansuubun abadan yàlla na yàlla yàgg sa taxawaay yàlla na yàlla lafal cat yàlla na yàlla yàggal la ci suñu kanam nga di won nga di ñu won yoon wu ñu wute yàlla yàlla mbokk yi dañ koy yëg yàlla du conjugation de déedéet du sujet verbe complément yàlla sentiment la amrun في القلوب وبالأرواح dëkkuwaay la bu nekk ci biir xol waaye connexion boo xamante ni bii ruxaaniya la su ma amoon benn kàddu gu may wax damay xoo wax ne nañu xool ñun ñépp li araabaat suñu bopp ci suñu digganteeg suñu boroom fii jumlatil xaliqati امام رب البريه ني خول سونو في جمله الخليقه امام رب البريه بو ني خول سونو بوب ني خامني سي جمله فراز بيغا خامني مو كومبوزي دومو ادمي بن واتواي لاني فا ام مي واتواي مفعول به فمفعول به منصوب أبدا فلينتصب تالفاعل الحقيقي هو الله دينا خامني نون بن واتش واي لا ام موي ньо خامني داني جيف كي سونو كاو تا كي جيف جوجو تا كين مونو تي دارا موي رب السماوات والارض موتاخ غور گتي تي واوال مولانا الحاج مالك ni yàlla lépp ci sa loxo la nekk du ma fi nekk di la ñaan du ma fi nekk di moytu lenn laa lay wax defal ma ci sama xol bi loo def ma d'accord ah mu jeex waaw maa ngi ñaan yow yàlla man Maodo nga def ci sama xol loo def ma d'accord waraddi bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yallahu abdu yéeguloo ni lu soof yàlla jeex lu soof yàlla jeex waaye lu safandi yàlla boo ko bëggee jeexal yaay faf jeex ba ko ba keroog muy soof yàlla li soob yàlla mooy bind mbindeef yi te kenn fekku ko ca te fasul leen yéenee bokk ak kenn yàlla fasuñoo yéenee bokk ak kenn suñ Pape Makhtar nga koy jàngale sànq yàllaa ngi wax ci alquran ni yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha wal tandur ma qaddamat li gadin wattaqu gis nga yàlla li mu waxal boppam ak li ñu koy waxal boo ko xoolee xam ni wuute na alaaj Samba Camara boroom kër bu yeewoo joxe joxe ndékki joxe añ joxe reer ñu yaakaar tëddee ci jot mu indi pliant bi teg ko ci digg ëtt bi woote ba ñu wuyu ko mu ne maytu leen ma war nañoo xool xew yàlla waxul ayuha naasu الذين آمنوا يني ووتني جمجن ما اتقوا الله رجل لن يلا هم الأمر دين يولي الدوامي أم دي دين يولي الطلب الحدوثي يلا بخول مصطفى نكو يا أيها النبي شريف اتق الله بقول اتق الله بي يلا وخ يونتي بي بقول بيم وخ سليمان بقول لك بيم وخ ينن جامي donte ni ahlu usul wax nañu wama bi xat xutiba nabiyu ta'mimuhu fil mazhabi sani li wér waaye nabi bu ko yàlla ne ragalal yàlla huwa atqal atqiya kon ay yaa ayuha nabi dum ala taqwa ragal sax ci ragal yàlla gi nga nekke waaye yéen ñi eggegool ci darajay ragal yàlla ittaqullaha góorgóor leen ba soobu yoon wa wal tandur nafsun nakira am la nafsun ku mu doon sëriñ bi taalibe bi président opposition ñëpp yàlla ne na ngeen ragal yàlla bu paree nag tandur nafsun ku ci nekk na préparé lijjanti beeg defante bi jaru ko li wóor ci suñ kanamu borom lay xewe na ngeen préparé dajaw li ngeen fay teg seen kanam borom maa qaddamat huwa nafsuhu li gadin dégg lool ku ne na préparé lumu lumu la wax de maa moom waa ji lu mu jiital li radin gis nga xaalis bi nga compté def ko ci compte bi yaa ko moom waaye nekkagul sa wërsëg moo wax la ko nag ma kañ lay nekk sa wërsëg boo ci jëndee kafe naan wala nga tabax ci kër dëkk ca kër ga wala nga dawal ci oto wala nga jënd ci mbubu wala nga jariñu ci fii ak jariñoo woo ko sa am am la waaye du sa wërsëg borom misbaax ne war risqu حقا ما به ينتفع حلال او مكروه او ممتنع برم مصباح صالح نه ورس دغ موي ليغا جارينو مو خام دغان نا مو خام دنج كو سيب مو خام دافا ارام وايي لنج تا جارينو موي سو ورس يالا موني نان ما قدم لغد واتقوا الله باين مخل يالا باين خلو رجل ñu ni waaw yàlla ragal gi lan la nga dugal beneen aaya mu ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah xam nga tarjiuna mooy da ngay bukkee xool ban heure ngay jóg ban vol ngay choisir ban hôtel ngay wàcc tarjiuna ok turjauna nag mooy xamoo kañ la xamoo fan la xamoo naka la waaye fenn lañ lay yóbbe laa ilaa ahlika wala ilaa baytika wala ilaa ahbabika wala ilaa ixwanika marjauka ila allah waaw kay sëñ bi nee na day mel ni ku ñu nguufaan rek nguufaan nit ñi def ginaar bi ñu ko yóbbu marché waaw <laughs> moom dañ koy yéen marché waaye turjawuna fii ilallaahi mbokk yi lii ay xaqaa'iq la ay réalité yoo xam ni dëgg la gudul dañ ñaar réalité ñu nag ginaar gee ko bokk ñoo xarulaa du mbég pël-pël bi ñoo ko bokk mooy xaqiqatul wujudi wal mamaat réalité ku judd xar mi daa judd ñu judd réalité faatu xar mi day dee wala ñu ray ko dibi ko wala ñu def ko lu ñu ko mën a def waaye day dee doomu aadama nag yenn saa jigéen ni nañ ma baal nga gis ko yëg boppam jaay classe wala for classe di wax kii man ak moom bokkuñu école récréation moo ñu boole da ngay nax sa bopp de yéen a bokk classe ma wax leen ko nag. yaa du man moom bokkuñu classe récréation moo ñuy boole bàyyi daa góor ñaari classe rek am te muy dëgg ñaari classe rek moo am te muy dëgg te ñaari M la nag classe CM2 lay doon M wala CPM. wala terminal M waaye M la mooy maternité ak morgue ba classe yooyu moom amul redoublé amul redoublé de li ma mën a mën a redoublé moom foofu doo fa redoublé moom yëguloo ni sixième primaire redoublé naa ko quatre fois ma ne kon loolu mooy cëslaayu waxtaan wi mbokk yi ñu fexe ba suñu xol yi ñu connecté kook suñu ngërmaane borom waaye nag am nañ chance شريف سمام موي اسيورانس تو ريسك مانا خمغا دا ام اوتو اسيوري كو 1 موا 2 موا بو نيوغانا با ملني سليمان نك 1 موا تا امول بن اسيورانس نا ام كايت جي ريك waye bu la defee ci risque nag mooy yowmal qiyam yowma la yaxdi llahu nabi a walladina amanu maahu Moustapha sa maam Chérif boo demee ci alfawzu wan najaat fil hijrati ilallahi nee na Moustapha dafa toog ba yàgg yàlla yónni Jibril ci moom ñu ko neel Moustapha dama ko jox proposition mu ne ko loo koy proposé mu ñu ko damaa bëgg yowmal qiyaam moom Moustapha ma jox ko dossier xeet yi mu mu lijjantil ko boppam ni mu Jibril te maa dimbali rek neel yàlla na ma dimbali rek mu lijjanti ma man ak gaa yi boole ñu lijjanti yàlla ni waa Moustapha lu tax yow bëggoo koo lijjanti ak cofeel gi nga am lu tax mu ni ko li annakum ummati ndax tax ma bëgg leen mooy sama xeet lañ sama waa kër lañ mu ni ngal la man mi nga xamante ni hum ibaadi yi sëgam yow li ñu nekk sa xeet rek la moo tax nga bëgg leen nii ngal la man yàlla mi nga xam ne ñoom samay jaam lañ maa leen defar te kenn fekkuma ci Moustapha lu tax bëggoo koo gis mu ne ko damay bañ a xool gis ci loolu la naqari yow yàlla ma xam ne loolu la naqari naqari ma te loolu la naqari du ma neex man yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla ni ko Moustapha yónni Jibril yow ma laa yuxzi allahu nabiya idan laa nuxzika fi ummatika kon yow mal qiyaamati wér na Abdul Aziz yàlla ni Moustapha gàcce doo ko am fii doo ko am fële yow ma bis boobu laa yuxziiru gàcceel mukk allahu bur yàlla annabi yonent bi walladina amanu maahu yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abdou lu gën a wër lu gën a wér bëgg njool màkk amul ma wax la ko gis nga alaaji Maalik si du xaaj Maalik comprendre yëf yi tax mu noppal mi gis nga abdou bàyyi daaw góor mën ngaa dugg ci kër yore saako caabi am buntu kër ga mënoo koo tijji parce que caabi am nekku ci wax naa dëgg saako caabi bu ci seen luuru buntu kër ga nekkul dangay karaj karaji ba say loxo des ci waaye du tijjee ko مورو نك دا لامب رك تيابي خمال مو تيابي موي بزرو حبة المحبة في قلوب المؤمنين موي فخه با جيمبت غرين بو نيي واخ بڬ يوننتي بي تي خولو جوليت ني عبدو المرء احبه saaba bi toog naag rasulillahi di ko laaj yowmal qiyaam yowmal qiyaam Mustafa ni ko li ngay laaj loo koy doyee muy damaa bëgg xam yowmal qiyaamati fan laay dëkk yow dama laa bëgg bokkumaak ak yow fu ñuy nekk boo nekkee ci kaw ma nekk ci suuf munuma laa muñ bu boobaa nag àjjana li muy neex neex dina am lu ma naqari te àjjana ku fa bëgg dugg lépp a war a neex yàlla Mustafa ni ko xam nga lu xew yàlla nee na almaru maa man ahabba ku nekk ki nga bëgg yowmal qiyaam yéen a bokk dëkkandoo Abdou yàlla yónnee na jibril abdou mu fekk njool màkka màkka wala ma dinatul mën a war a chérif ma wax la benn affaire jógee asamaan ñëw ci suuf ni kenn fa fekk yàlla nga lay nuyu te muy dëgg sama am ko mos a lu mu wax mu ni ko mu ni ko inna allaha yastahi an yuadiba man tasamma bi ismika keroog indiwul indiwul décret indiwul tëkku indiwul digle xam nga lan la dig lan indi information lu ko wax mu yàlla nee na yowmal qiyaamati dina am kees sa torop moom yàlla fekk ko Muhammad mu koy dugal safara waxul moomoo Muhammad la wax wala yuhaasabu la wax ولا يعاتب دليل الصبر ينادي ربكم يوم القيامة بلسان القدرة قائلا ليقوم كل من اسمه محمد ولا يعاتب الجليل الصمد عبد العزيز بروم تيرب نينا يوم القيامة بني ديكي كين دمغول فين لي جنتي دارا يالا دي توك ياغ موني كيب خطو محمد جوغول تاخو ولا يعاتب الجليل الصمد Seyduna Muhammad jóg taxaw ñu tudd Muhammad ñëpp jóg taxaw yàlla ni xam ngeen lu xew àndi na nag seen turandoo yéen ñi tudd Muhammad dugg aljana ci barke Muhammad waaw ñoom Muhammad nag xanaa duñ dugg bàyyi seen ndey ak seen bàyyi ci biti ak soppe Seyduna Muhammad yi cofeel googu nag cofeel googu Abdou moo fekk Serigne Modou si Tiwaawan xam nga da ngay xool sa téléphone waa ji bippee la wala mu woo la wala mu message la sëñ Maodo doon nee na kenn rappellement wu ma kenn appelu ma kenn bippee wu ma dan maa woo te bi ma woowee jot nañ ma xëtafat bi al aswaaq xëtafat eeyu na nee lañu wax cofeel man sëñ Maodo si Ibnu Dabbah ma tok ba yag am luy vivre ci man ci man lañuy appel ma nek té cofeelu Seydina Mouhamad mo composé di wa Maodo si Ibnu Dabbaax alfa ulil fawriya fa ci sasi si ajab tuhaa ma décrocher xam nga Abdou sëñ bi bu ne won summa ajab tuhaa xam nga yeen saa gars def lako nga appel shérif wala imam Adama ba nga woo ko fekk yow amul sa amul bëggulaa fiiru lu jël la day xool nii kii kon ko may wax nii sa waay ah shérif ne daf na ko sànq loolu mooy summa bu paree rek doog laa woo doog laa wuyu loolu mooy summa ajabtuha ajabtuha man li ma doon def xam naa ko li tax biñ ma joxee rajo ma dem taxaw fee xam naa loolu parce que ñii faaqe atun sahra man ñooñ foofu laa bëggoon taxaw ah waaye eh, caméraman yi ñoom cameraman duñ joxe maan ba pare bëgg tax sama diggante ñu joxe bàyyi leen ngeen def waay ok kam ah waaye sëñ bi waaw kay waay sëñ bi nee na ngeen caméra yi wëlbatiku. wala rek nga décroché mu ni fa sëñ Maodo mu ni fa. ci saa si ajabtu haa mu wuyu cofeelu Seydina Muhammad walqalbu fii hayamaani walxaalu alqalbu fii hayamaani nee na bi ma ko ubbee décroché munu maa wuyu munu maa wax ñu ne ko waa sëñ Maodo ko mën a wax mu ne cofeel gi dafa dox sama digganteeg xam nga yenn saa ngay waxanteeg koo bëgg bëgg ko lool nam ko lool gëj koo dégg bu la woowee boo décroché tu perds les mots sëñ Maodo mu ne décroché j'ai perdu les mots lu tax loolu mu ni sentiment bi ma am ci Seydina Muhammad mu naak mu ni foofee xadaat radu sirla wujudina xam nga al idrak abdou inda ahlil mantiq mooy al wusul ila al maana نانا فوقناك سمروح اللي بولي ما عاني المعارف الربانية سيمونا نانا سمروح بدوناكم من فاس ديلتي خمسي ابن محمد لا ربي تعالى الإله أبو سيسبب بسيدنا محمد خمني كبار كان ليا لجي قلي ماما آدم بالخليل نجا من النيران أبدو خمنا لن موتك الخليل نجا من النيران به بالخليل نجا من النيران يالنينا واتخذ الله ابراهيم خليلا ابراهيم جرجين ديف وخم غلان موي الفرق بين حبيب وحليلي ابراهيم جاء بنبيران سيدنا محمد موي سانغو سيدنا ابراهيم واي موسو ديغ يالا وتي القران ني واتخذ الله محمدا خليلا فمرتبة الحبيب أقوى وأقرب من مرتبة الحليل فالحليل يصل بواسطة والحبيب يصل بلا واسطة يخرج النجاة من النيران وابن كات سانتين جبرالتار سنوا كون جزاكم الله خيرا بريزيدا يخرج النجاة من النيران نينا سيدنا إبراهيم بنكو سنك سفروا يلانكو وخيا نار كوني بردا وسلاما تبارك رسول الله يخرج النجاة من النيران عبد العزيز نينا لابراهيم ما يخرج يلا ويسيرنا محمد ما يصب يلا الخليل نجا من النيران سيدنا ابراهيم يرمانيم اك جغل بروم من كو تك اك اي ابي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين لا الخليل يقول سيدا اقد شريف سيدنا ابراهيم دا فني يلا اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كن فمغفرته بمجرد الطمع والرسول الله مغفرته بحقيقة اليقين نحن يعلمون إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما كم قالوا خير وينشرك الله موكما موكرا نصرا دبنا ويعظما بمعقل الدفر بالكريم عبد الحليل يسل بواسطة والحبيب يسل بلا واسطة sëñ Maodo nee na sëñ Maodo nee na ci barke Seydina Muhammad ci la yàlla woowee Seydina Moussa al Khalil خلعني على بينني سبحان abdu lelay wonne moustapha bokkula gayi alkalimu nuudi fawqa thara bi iqlana alayka warrasulu fawqa thuraya lam yukatab bisqala in alayka taaram ak rafetaayam ba jigéen ña waa am misra ak zaliqa jabaru buur ba bañ ko gisee amuñ amuñu sago ba di sàkk ko yonent yàlla yuusufa taaram mante jële ci taaru seydina muhammad sëñ Maodo nee na ci leeru ñool màkka ci la seydina yuusufa amee taaram nga abdul aziz خا خمولوني فكل جميل وكل جمال من جمال النبي المصطفى عبد العزيز يقولوني بيب تار بيب باخ بيب تبع بيب جيكو برافت نيكو ريجي سيدنا محمد sëñ Maodo si nee na ki nga xamante ni moom laa moom ma woo ma def ko roche ko muy cofeelu Seydina Muhammad moo dàq ci taar yi moo gën a baax ci way baax yi moo gën a tëdd ci way tedd ñi moom la ñu yaakaar tey ak ëllëg ash-shafi'u al-mushafa'u xayrul xaliqati ahabbil الحلقة أبر الحلقة أجمل الحلقة سيدنا محمد رسول الله Abdou Abdou cofeelu yonent bi yàlla nañu ko yàlla may xam nga kan ma bëgg yonent bi Abdou daa baax Malick daa baax dafa dem ba yàgg li muy lekk neexatul mu ne am na lu ko dàq la muy naan nee na neexatul am na lu ko dàq ñu ko lu dàq li ngay lekk ak li ngay naan mu ne bëgg Seydunaa Muhammad Abdu, xamna kaddu yi léegi ma jox ko seigne Pa Maxtaar dama don baña dama amul lu won rek ñaka a ndigeelam motax ma don barkelu ci kaddu yi neew waye xamna ni ya nga yag mamin jazakallah khairan ma ngi dem jox seigne Pa Maxtaar kaddu yi doli ko sam doli barkel xam-xamam mu ne yàlla na ko yàlla mott lii ak ndawam mu ne macha allah li gi des nag ñu def ko ñaan Souleymane mu ne jërëjëf ba mu ne nit ñi doyluñu ndax Sénégal moom yàlla dafa na leen sutura boo xamante ne bii دانيو صوب صلى الله عليه وسلم مني نيغي اغالي نيويي ريك تي نيان سيرين شيخ تيان سي وارون نا نييو مني سيرين الحاج مالك واي دا فا ام كو غور كو يوني وون ndax xew xew yu dajé waye ñun ñëpp waye ñun ñëpp ñoo fi teewal sëriñ bi cofeelam ci jekko moom xam na ni ci waajuram la ko donne maam Cheikh Alxaaji Abdu waaye jekko lu rëy ci sëñ Maodo la waaye yéen it sëriñ Maodo rëy ci seen xol la amul dara lu ngeen di def dana président dana woote Xaaji Babacar Diagne ci turu jamaaya bi ne waxal sëriñ bi nangam ak nangam ak nangam mu ne kóllëre googu ngeen di sàmm seen diggante ak moom bàyyi ca xel mag ña lu yàlla santaane la sàmm kóllëre baax na torop matal kóllëre baax na doonte bi nga bëgg a ci jamono nag jërë ngeen jëf mu ne sëriñ bi mi ngi nuyu tuddoon na Chérif Mamine alxaaji Salihu Dia président Adama Diallo nga xam ni moo jiite fédération bu Cheikh El Hadj Mahi Sy Maodo daawaareem yépp ak ñu ko ñu ko seqal yépp mbokk yu tedd yi ci góor yi ak jigéen yi gis na fi soxna jeyna ba Jigal ak soxna Mami Diop Maodo wa tabaarakallaahu yal na yàlla fay leen Cheikh Ahmed Tidiane Seck dem nañu léegi waaye ñi ngi fi waaye nit nit dana teew ba pare absent nit dana absent ba pare teew yal nañ yàlla may ñaar yépp nag teew ba noppi teew yal na ko yàlla boole defal ñu ngi nuyu alxaaji duudu géy bu xob di ko jox wàccuwaayam alxaaji abdu got juuf ñu ngi koy nuyu alxaaji abdullahi jéen al imaam وسني باي الحاج محمد لمن جين نيمكو نيمكو زيادة كده خوات توايم دنيو واكر جيب كندي كده السرني بي نيجو نيو أجا ماري بيير باي نيجو نيو زاوية مام شخصي الحاج مالك نيجو نيو تيول نيب تيبس بي ñu ngi nuyu zawiya Seydina bi ci gël tàppe ñoom tamit te imaam maam Baara Ñang nekk fa ñoom alxaaji Mansour si alxaaji Mbay Jóob alxaaji Asan Fall yore daara ja sànq la fi jóge yal na yàlla fay leen ñoom ñépp bi ñu commencé defar jàkka jekko alxaaji Mbay alxaaji Ibra Pay ak mbokk yépp foofu la ñuy jullee fa la ñuy xadra fa la ñuy wasifa li ko góor gi daan defee fii ci jekk ko rek noonu nag ñëw foofu di ko def noonu dara jógu fi mbokk yi lépp a ngi dox yal nañ yàlla may xol yu ñu doxe rek bu sa xol rafetee booy xol àdduna bi lu baax rek ngay gis bu sa xol lëndëmee même boo gisee lu baax seytaane moo la koy ñaawalal ba nga yaakaar lépp a ñaaw mu ne xam naa la da doon waaja mu ne waaji dafa tukki wuti ci jamono yu njëkk ya yàlla may ko teraanga bu bari mu ñibbisi jël kaar alal ji yépp def ko ci aw walis ak gaal ñu aj ko ca kaw moom xaalis ba gaal ga ci lañu denc yépp ci lañu denc lépp nag mu dugg ci oto bi ah, mu bi moom waa ji coono bi jàpp ko mu nelaw nelaw lu yàgg ndekkee am na ko wàcce gaal ga mu yoroon moom waaja ba mu àggee fa mu jëm laaj gaal gi ñu ne ah gaal am na ku ko wàcce mu laaj ndox moom waa ji ñu jox ko ndox mu jàpp jublu penku julli ne yàlla yàlla nga tukkal àdduna bi ah waaw moom soxor na di adduna ma tukki waaw mu ne moom moom mu ne yàlla yàlla nga tukkal àdduna bi tabaaraka la ndax xaalis bu réer rek mu ne ñi ngi nuyu alxaaji yuusu si soxo oustaz xaar fall alxaaji ousmane sarr alxaaji pap samb di suñu goro ñu ngi koy ziar di ko jox wàcc waayam moom nag ah mooy goroom da ko nuyu nuyu spécial macha allah ñu ngi nuyu Cheikh Ahmad Tidiane Diop bu imaam Alxaaji Ousmane Diop imaam bu tedd boobu bu yiw boobu bu baax boobu mag ñépp gërëm ko yal na yàlla doolee guddal fanam wax leen amin al ustaaz Alxaaji Mansour Fall xaaja abdul aziz Jani, barki demb rek cheikh hadji malik maodo mi ngi koy tuddu fekk mu passe ko hadji babakar jaañ mi ngi koy laaj di wax ni ñom ñaar wuñu nan ñom ñaar ay cheikh lañu ñoo bokk benn année bu mu gënee àdduna ñu tuddu ko way juro ak tudd ko woy juróom atam macha allah yàlla yàlla loolu sutura yi ma yoro mbay mu andi woon terang bi alxaaji marital njaay andi woon ci jumaa ji ci jàkk ji yàlla ko yàlla àggaleeg jàmm muy jàkk ji jumaa maam cheikh alxaaji omar muy jumaa ba ca tiwaawoon képp tam lu baax rek yal na yàlla yombalal ba nga àggale ko jàmm allahumma amin ñu ngi nuyu alxaaji Seydou Guèye bi ñuy teg xeer wi ñëwoon ci turu président tabaarakallaahu yal na yàlla àggale lépp ak jàmm alxaaji Doudou Guèye ami Samb ñu ngi koy nuyu ñu ne moom dafa génn àdduna doomam moo fi nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla ko gënal fi mu bàyyi ko wax leen amin yàlla dëkkaale sallallahu alayhi wa sallam njaboot gi mu fi bàyyi yàlla sàmm leen te wattu leen ñu ngi nuyu maire Bamba Fall nuyu Cheikh Tidiane Ba alxaaji waagaan Diouf نيو نيو سانك تبارك الله ديكو جوخ واتي واي مومي تام الحاج عبد العزيز مبي بو تي اف ام نيوون نا نجاي ميت نيوون نا شيخ الحاج منصور مبي نيوون نانكو سانك يالنا يالا دولي غودال فانام اك نين نيب رك مبوك يي yàlla na yàlla musal ci gàttu fan wax leen amin mu ne mas naa nangu ci góor gi Cheikh Al Hadj Abdou ñaari bayit mu ne taqabulu saayi taqabulu saayi wa maxwu zalali wa maxwu zalali libni samanina bi manni lmufdili libni samanina bi manni lmufdili gufraanu ma mada wa ma sayaati li saaxibi tisina fi zallaati allahu sëriñ bi nee na moom Abdou nee na ku yàlla baaxe ba nga am juróom-ñett fukki at muy quatre-vingts ans loo def ci lu baax yàlla nangul la ko sa bakkaar yëpp yàlla jéggal la ko boo amee quatre-vingt-dix ans nag bakkaar yi nga defoon ak yi nga defagul yëpp yàlla daf la koy jéggal allahu mu ne bërki démb rek Tiwaawan dañ julli fajar ba pare wasifa ba noppi ma ne naa dem armeel ya ziyaara taxaw ci xabru baayam woo ko wuyuwuma woo pappam wuyuwu ko allahu akbar ma woo sama baay ya dend ak moom wuyuwuñ dend ak moom yépp wuyuwuñ ko sama maam ya fa tëdd yépp ma woo leen kenn wuyu ko bàjjen ya tante ya jarbaat ya soppe ya kaang fóore ya ilimaan ya ñépp ne nemm kenn waxul allahu akbar bayna aqwaamin sukuutin nga nekk nit ñoo xam ne ñépp noppi kenn waxul naafiqiina bi ñoom nag ñoom ñépp seen wax waa armeel yi mooy ak noppi ak kelleeru rek kenn du wax kenn du wax xam ni mbokk yi yàlla rek kay lu waaye di jaay foofa àggee billaahi ma lama ci kanamu yàlla allahu akbar fii nag moom lu la neex wooteel fëggal sa dënn Souleymane wax na ko léegi bokkuñu classe du ma sa morom man VIP la man tooroodo la armeel yee amul tooroodo amul VIP gas ba mu xóor rek dugal ci biir suul marmalal teg muy taw sa kaw muy taw sa kaw naaj wi ñax mi sax ci sa kaw ñax mi sax ci sa kaw te doo ci man dara bu fekkee nga juboo woon sa borom nag fekkee nag nga juboo sa boroom def li la yàlla sant def la yàlla sant di sujjootal yàlla di yàlla di ko rukkooxal di jokk mbokk di jokk mbokk wax yiw di wax yiw dimbali koo tane yéen a ñëpp jàmm yéen ñëpp jàmm. bari looy sujjootal yàlla bari looy sujjootal yàlla. bis boo fi jógee boo fi jógee. nit ñee lay yërëm nit ñee lay yërëm. waaye yow waaye yow moom. dangay ngay yaataa yimbe ji. borom xam-xam yi dañu wax ne. borom xam-xam yi dañu wax ne. am nañu wax sax ne xadis la. am nañu wax sax ni xadis la. bu doomu aadama génnee àdduna. ñaari baraba koy jooy. ñaari baraba koy jooy. benn place bi mooy ci suuf daan na ko jooy. benn place asamaan di ko jooy fi koy jooy ci suuf mooy barab bi mu daan jullee bu nit génnee àdduna barab boobu su su ko yëgatul mu julli rek day jooy tumuranke ana sama waaja ki daan julli fii di ma wettili man de yëgatuma ko man de gisatuma ko fekk yaa ngi ci biir bàmmeel suuf di la jooy jëf ju baax gi daan yéeg sa jëf ju baax gi daan yéeg di dem ci kaw asamaan juróom-ñaar ñu la koy dencal ñëwatul ñëwatul barab booba ca kaw barab ba ca kaw xam ne xam ni ki daan def lii ki def lii nekkatu fi mu bëtt ay bëtam mu ay bëtam moom asamaan di jooy allahu akbar fama bakat alayhim as-samaa wal ard yàlla mu ne am na ñoo xam ne asamaan jooyu leen suuf jooyu leen ndax liñ fi nekk woon baaxul yàq yàq fen jëw rambaaje dog mbokk lekk lu ñu moomul ànd ak jigéen joo takkul lekk riba lekk riba jouer carte jouer carte nangu suufu nangu suufu jàmbur waaw yàq sa yu jigéen yàq sa jigéen ba noppi wàññeeku takk ndaw takk ndaw si serigne bi nee ñi ngi nuyu ci tuddu serigne Maodo wa daayira Castor mu ne pa Amar ni tok ak ànd ak Maam Mor sek ñen man mi di wax ak pap Omar Pen ak ñu andal àndal ci goor ak jigen ñëw nañu wuy si ñëw nañu wuy si ndax daayira ba nek Castor. ak damaye bii yëpp yëpp njabootu Serigne Hadj Malick Sy Maodo la kon su waa Jokko wootee ku Serigne Maodo am rek danga ko wuy si incha allah coordination daayira Tijane ci njiital Serigne Cheikh Ahmad Tijani Gaye ak soxna Fat Cissé yal na yàlla doole guddal fanam may ko wér. soxna yu tedd yëpp ñu ngi ko seqal. jigéen ñi moom. mu ne jigéen ñi moom. mention spéciale. mention spéciale allah. bi muy jóge bi muy ñëw fii. mu ne bi muy ñëw fii. maa ngi bàyyi koo yoof tongoor. mi ngi bàyyi koo tongoor. sëriñ maam Alpha moom moo fa yónni woon. sëriñ maam Alpha moo fa yónni woon. ci xeeru juma bu ñuy teg. ci xeeru juma bu ñuy teg. ba may laaj ba muy laaj xaalis ba. góor ñaa ngi fii. góor ñi moom mi ngi ci ginnaaw taxaw rek. jigéen ñaa jigéen ñaa ngi fii. juróomi yoon jigéen ñi jóg nañ juróomi yoon joxe joxe góor ñi jóg góor ñi jóg moom ay benn benn góor waa góor ñi moom moo tax Souleymane ne ma da dem ci jigéen ñaa ah. ah. waaw rek allah waaw wax dëgg ma ne ko lii de lim may wan. mu ne lii lim may wan. mooy yowmal qiyaama mooy yowmal déglu leen déglu leen sëñ bi nee na lii lim koy wan mooy bu yowmal qiyaamee. jigéen ñi dañuy dugg àjjana. jigéen ñëpp dañuy dem àjjana. góor ñi rang góor ñi rang moom di xëccoo place yi.

waaw dëgg la sëriñ Thank you.

tabaarakallaahu mu ne am na julli yoo xam ni boo toppee ci imaam bu sëlmalee sa xel dafay dal xel dafay dal nga am njot lu rafet nga am rafet yaakaar bu dëgër ne yàlla na mun a julli gi yenn saa yi nga topp ci imaam yenn saa yi nga topp nag moom mu lem julli gi mu lem mu taxañ julli gi da koy taxañ da koy taxañ cëppi ko ay seconde rek seconde nga néew rek mu taf tafee julli gi génn ci nag génn ci nag julli gi nag na ma mu ne dal na ko moom mii ñaari yoon ñaari yoon boo xam ne ba mu paree boo xam ne ba mu paree julli damaa roccee ko rek damaa roccee rek dem julliwaat dem baamu jiwaat julli ga taxawaay ba matul sëriñ bi ñu bi mujj def da nga def dars ci julli daf ma yokk daf ma yokk darsu bu wër si julli daf ma yokk ba ma ko tàmbalee ko julli ci noonu ko defee ba tey su mu jullee boo defee man sama bopp damay féex wallaahi baarakallahu jërëjëf jërëjëf imaam imaam sëriñ bi nee na yow da ngaa baax rek waaye yal na yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot bi di ñaan tamit imaam yi génn àdduna yëpp alxaaji sadiq ndooy alxaaji mawdo kan alxaaji mansour tin ak ñu jiitu ñëpp yal na yàlla yërëm leen mu ne julli gii moom yaakaaru na fii ci gël tàppe am na benn bis ñu toog góor gi timis jot am benn mbokk bu ñëw fekk ñu ngi toog góor gi ne timis jot na ñu ne waaw mu ne diw demal nga jiite mu ne diw demal jiite julli gi waa ji julli ba àggal waa ji julli ba àggal góor gi ne ma maxtaar góor gi ne ko maxtaar mu ne ko si mu ne mu ne ma julli gi yàllaawul de mu ne ko julli gii yàllaawul wallahi mhm. ndax dañ caa dugal lu ca bokkul ndax dañ caa dugal lu ca bokkul mhm. julli bu ci wane wu duggee. julli bu ci wane wi wane wu duggee. ak tiitaru ak tiitaru. ak wane ne mokkal naa. ak wane ne mokkal naa alquran. yàlla génn ci yàlla génn ci julli ga. waaw dégg ci làmmiñu Cheikh Al Hadj Malick Maodo. dégg nga ci làmmiñu Cheikh Al Hadj Malick si Maodo. mu ne dafa am benn kilifa gu mag. dafa am benn kilifa gu mag. dañu koo liqaamal. dañu koo liqaamal kilifa ga. waxtu timis waxtu timis. mu dem bay def takbiratul ihram. mu dem bay kàbbar ci julli gi. jékki-jékki rocceeku jékki-jékki moom kilifa ga génn mbooloo mi keneen xëcc keneen ne ko jullil mbooloo mi ba noppi nag demul ba pare moom nag dem toog ci mbooloo mi ñu julli ba àggal ñu julli ba ba àggal mbokk yi ne ko kilifa gi lu xew ñu ko waaw kilifa gi yow lan moo yow bu fekkoon da nga dem sax lan moo tax nga de bu fekkoon da dangaa dem ñu xam ne danga nga am ngant xam da nga am ngant waaye yow demuloo waaye yow demuloo bokk ci julli gi mun leen bi ñu ma liqaamalee ma dem bay kabbar seytaane dafa ma song seytaane daf maa song ne ma jàngal saar sàngam ne ma jàngal saar sàngam te neexal sa baat daaneel gaa yi ma xam ne yàlla génn julli gi ma dellu ginnaaw allahu akbar am na ñoo xam ne ñoom xam nga mën a baaral imaam ah ba mari daal ngi nuyu alxaaji Samba Kamara mi ngi nuyu alxaaji Samba ko sant di ko di ko sant di ko gërëm jàppaleem ci daara ji fii ci daara ji fii ci gël tappe lépp lu ñu soxla lépp lu ñu soxla ñu waa daar ca daara ja mu jëm ci këyit duñu war a topp jëm ci këyit yu a toppatoo wala lu ñu fa war a defar wala ñu war a defar bu duggee ci noppam bu duggee ci noppam bala muy am jàmm bala am jàmm loola sotti yàlla na ko yàlla fay jërëjëf macha allah ñu ngi nuyu alxaaji Mansour Mbaye ñu ngi alxaaji daaw góor mbaay ak alxaaji daaw góor mbaay tofal ci papa abdul aziz mbay tofal ci nag papa abdul aziz mbay ak rakkam yi mu àndal yëpp ak ñi ma àndal ñëpp ay rakkam yu àndal ñëpp macha allahu taala yalla na yàlla fay leen ak xaj daaw góor sëriñ bi nee yalla yal na yàlla fay leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu leen di ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan di sàkku seen ñaan nag ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu siise alquran siise alquran allahu akbar xaw ma nu ko umu kalsoom di wayete de xadiisu ruuxi lil arwaaxi yasri wa tudrikuhu lqulubu bila anaai allahu akbar mu ne umu kalsoom waykatu arab boobule nee na xadiisu ruuxi nee na waxtaanu ruux للأرواح يسري من وقت بجوجي تروح تروح لجم الله أكبر فتدركه القلوب بلا عناء من وقت بجوجي تروح تروح لجم خل يب دينك ينعو تدو عندك شون دايوم وتنيوم ما شاء الله waaye sa diñ ma dul alquran alquran di moom masha allah mu ne fatiha bi moom jàng nañ ci ne jàng nañ ci ne maliki yawmi diini rek. ndeke du maliki yawmi diini rek. maliki yawmi mi maliki yawmi diini. maliki yawmi diini. maliki yawmi diini. maliki yawmi diini. maliki ba ci malaka yawma diini sax. ba ci malaka yawma diini sax am na. Mhm. yëpp ay njàngin la yëpp ay njàngin la. baarakallahu. ak yeneen yi mu ci dugal yëpp. ak yeneen yoo yëpp tabarakallahu. yàlla fay yàlla la medul. war jërëjëf ba jërëjëf kii baal baal na li yàlla boo jégal dafa am lu ma si lu ma si jaaxal tuuti déglu déglu imaam am lu ko jaaxal tuuti parti bi nee na déglu leen parti bi jeexat bi ko ci moom nañ ko ci boole moom sëñ Maodo nag mbokk jullit yëpp mbokk yëpp jàmm am ci réew mi incha allah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil fukki yoon ak juróom-ñeenti 19 moo ñu ko joxoon ne nañu ko ñaanal macha allah fatiha salaatul fatiha bismillah fatiha salaatul fatiha wa ni'mal wakil 19 ah hasbunallah wa ni'mal wakil 19 kenn ku nekk